mariage entre personnes invalides voilà les belles histoires d'amour amour sans handicap Inch'Allah amour sans handicap boo xam ne tuwaarkal tuwaarkal waa ji nee na mm-hmm. quand elle m'a ne peut m'épouser mu ne man comprendre naa ne sama handicap moo tax bu gudd sëy ak man mm-hmm. keneen ki ne man sama soxna jëkkër ju handicapé la doon wër kii ne Aïssatou Cissé conseillère du président de la République mu ni beaucoup de handicapés se se marient à des à des valides waaw loolu nag du fi jeex du fi xaaj reportage l'amour en fraise yaa ngi dégg et chez l'amour ne va pas à la retraite te gis nga ngaa la kan Pa Assane Nabukoor man damaa fonk sunu pap yi sunu yaay yi nos papi yi mami yi nga xam ne tuwaarkàll la dañuy sëy pendant des années am ci ay njaboot mais tey la ñu gën a bëggante. Mm-hmm. ces papis là moi je les aime profondément. Mm-hmm. et ces mamies yi nga xam ne wan nañ ñu vraiment yoonu mbëggeel wan ñu exemple lu mbëggeel. Mm-hmm. nga xamante ne ñun daf ñuy jox espoir ñu gëm ne l'amour existe vraiment. Et en donc parlant de cette une nga doon euh, ci une bi nga nekkoon nii amul amul amul xamul xamul handicap xamul nit ku ñaaw xamul nit ku perdre ay cëram amul xeet. déedéet amul dara. mbëggeel amul loolu gis nit muy ànd ak nit naan mais kii lan la def ba ko. li ngay gis ci moom muy ñaaw kooku day rafet ci moom li ngay gis ci moom muy muy lëndam kooku day leer ci moom mbëggeel moo mel noonu amul amul amul lu muy seet wala non dafa doy waar déedéet déedéet mbëggeel dafa doy waar xam nga ni man mii bëgg mbay anta mu yem ma fii mu benn problème xanaa déggoo Youssou Ndour waykat bu mag bi nee na la ah mbëggeel capitaine borom la mhm. mbëggeel la ne ciix ndabu koor mhm. <laughs> dugg ci sa biir xol bi xoolal yow ki nga bëgg yow rek yaa yow rek nag yaa xam sa définition amour maanaam paasal yow rek yaa xam lu tax nga bëgg waaj wala lu tax nga bëgg ndaw si. Mm-hmm. ñi dañuy xool nag waaye yow kii lu mu koy doyee. wallaahi ah yow fekk nag yow kooku nag ah kooku kooku dëgg-dëgg kooku ah kooku la muy liggéey ci mbëggeel gi yow defoo ko. barki sëñ Bamba am na ñoo xamante ne juddu nañu tey am nañu 15 ans de carrière ci mbëggeel. kay dëgg. am ñoo xamante ne mbëggeel la ñu xamul mbëggeel mbëggeel mbëggeel mbëggeel ah mbëggeel daal amul handicap bés bi le jour d'accord naa ak yow ñu ñëw léegi ci grand panel mu ne Saint-Valentin dans la dèche dëgg la nag. nit ñi bëggante nañu waaye poos yi fëq na nag xaalis amul l'amour à l'épreuve de la résistance yaa ngi dégg lu xaalis ñàkk-ñàkk joxe leen cadeau de arrêté leen nii ngeen def nii. xaalis bu amoon dëgg-dëgg nit ñi dañ lay dañ lay yónnee ay brunch matinal ay rose rouge. ay petit déjeuner. ay chocolat ay chocolat. Mhm. ay ñun ñun jigéen dañ bëgg yooyu. waaye ñun chocolat ñu neex a yónnee ndax heure bi ñu war a fekk au ñu fëgg la mu ñëw ñu jox la chocolat beeg yooyu dañuy fekk fii ñuy wax. waaw mais dañuy wàcc ñun bu ñu waxee <laughs> ñun bu ñu waxee dañuy wàcc na bu waa te te sama valentin yi nekk ci internet man dama bëri ay valentin xam nga ak ay valentine ñoom ñëpp maa ngi leen di xaar. billaahi wallaahi waltaalaahi ku ko ci xullee ba 14 février bi yow man sentiruma la booy boo nga xam ne say batas na. maa la wax li organisation des secours en Turquie euh, ñu ni euh, groupement national des sapeurs pompiers euh, daal dina dem pour wàllu leen parce que dafa envoyé benn détachement foofu la ca Turquie direct news précarité rémunération faible dans l'hôtellerie waa paasal xanaa du colère noire baa ngi nii colère noire des travailleurs contre le patronat mm-hmm. ñii sonn nañu ñii ñu ngi bëgg a dee l'intersyndicale des délégués du personnel dafa déplorer ay conditions difficiles de travail xamante ne moom mooy secteur hôtellerie mu ne qui ne font mu ni le patronat manifeste un manque de considération mais et de mépris à l'endroit des travailleurs loolu pour lan waaye yow mën ngaa mépriser koo xamante ne chiffre d'affaires boo am moom la ci jàppale. c'est ça. malgré tous les sacrifices consentis par les travailleurs de l'hôtellerie et les efforts du gouvernement pour soutenir l'industrie touristique mu ne patronat bi daal mu ngi continuer di jouer la comédie daal et le dilatoire. ñoom nag nee nañu lii il faut que ça cesse parce que ñoom sonn nañu sonn nañu dëgg-dëgg te sonnantuwuñu du noonu enquête ñëw ci Benno Bokk Yaakaar présidentielle 2024 mu ni le dilemme des alliés j'ai presque envie de dire sama yoon nekku ci 24 heures ñëw ci présidentielle 2024 justice liberté d'expression de presse et de manifestation trois points de suspension journal bi mu ni le Sénégal à l'heure de ñun nag gis nga xoolal dammuñu benn yoon yam ci ñu platé la ñu di pas Assane suñu yax yi moo toja toj tojatoo tojatoo tojatoo tojatoo toj toj tojot ah la saane waxoon xale bi naan ko na jooy na jooy ñun ñëpp jooy nañ fu mu nekk nii ñun ñun ñun danoon damatiku damatiku mu ne en poussant le bouchon de la troisième candidature poussé nañ ko sax ba noppi mu ne et celui de suite bëti beneen bi ci topp mooy régime benn Bokk Yaakaar gi brèche yu bëri ubbi mu ni il a remis en cause le principe de l'égalité devant la loi et celui de l'alternance fondement de la démocratie nee naa la journal bii man dama koo tàmbali bëgg Cheikh Niass a ngi ni nee na dafa bëgg Babacar Diagne nga démissionné Cheikh Niass nee na nga démissionné Babacar Diagne CNRA yow miy tëj signalu Walf waa Walf dañoo bëgg nga demi dégg nga projet de fédération CEDEAO dafa rejeté l'initiative bi euh, procès baa ngi nii nag foofu ñu koy wax Pa Assane procès bu Mouhamed Ould euh, Ould Abdel Aziz bi dañu ko suspendre mm. yaa ngi dégg mm-hmm. ñëw ci beneen yéene kaay ñu xool yoor yoor mi nga xam ne du yooru ni ko Jérôme di waxee descendant de famille royale et religieuse et coordonnateur de Pastef mu ne patriote ya nekk ca Touba Serigne Cheikh Thioro Mbacké modèle idéal la du bu politique journal bee ci wax mu ne lii il est une embouchure des grands fleuves ki ko témoigné mooy xaritam Cheikh Omar Bamba Diop mu ne et en lui mu ne se célèbre les noces de l'islam et des valeurs ceddo tubaarkàlla tubaarkàlla moom Serigne Cheikh Thioro Mbacké rester sur ses gardes pour faire face à ce régime de l'arbitraire moom Serigne Cheikh Thioro Mbacké protéger Ousmane Sonko qui est l'espoir de tout un peuple moom Serigne Cheikh Thioro Mbacké mhm. modèle idéal du marabout politique yor yor a ko wax mhm. Mhm. critique ñëw ci menace d'instabilité sociopolitique mu ni le feu couvre le feu couvre sous le mandat mbir mi nag doy na waar ngaa la kan parce que fa ngi nii di rebelle wu ca wet wa violation de droit harcèlement judiciaire Pastef sonn nañ de waaw Pastef nag sonn nañ nag woo nañu sax droit de l'hommiste yi parce que vraiment sonn nañ nag ñoom nag sonn nañ nag boo bëggee dégg-dégg le mandat ñëw en embuscade sur les flancs de Macky mu mooy l'énigme qui taraude le le le palais coupure signal baa ngi nii weekend de feu boo xamante ne waa Walf ñu ngi koy waajal incha allah vendredi samedi dimanche lay doon kii du Baba Tandian hmm. dafa war a taxaw devant le juge différent avec le président la fédération sénégalaise de basket ah. waxoon na ma ko de ci émission bi mu ne woon euh, loolu rek lay lay xaar. Ah. yow bugg a ngi nii ci kaw nan da def coup de gueule. ak ah, ñam na moom ñam na coupure xam na ko pour coupure nii buggaan na njëkk a ñam. bu woo waxee ci Walf war nga caa wax. ndax yow xam nga. le quotidien le quotidien suspension de maître El Hadj Diouf baa ngi nii. yaa ngi dégg Nabou Cor. waaw yaa ngi dégg Pa assan Seck dama ne suspension bu maître El Hadj Diouf baa ngi nii. le quotidien le quotidien nee na affaire sans suite. par parmi nag juge yi nga xamante ne ñoo ko war a jugé am na ñaar ci ay adversaire am yoo xamante ne ñoom la war a jàkkaar lool ci mbiri Sweet Beauté bii mu ne Adji Sarr nag ah ndax dafa nara a perdre avocat principal am mhm. loolu nag laaj la ndax nag suspension bi loolu yëpp yàlla mu ci yegg dan na ko ah, mettre El Hadj Diouf daal di koy représenté comme mooy avocat am du dëgg parce que ils sont projet de guerre civile c'est malhonnête ça loolu ah te rëy ce titre est malhonnête te rëy c'est malhonnête et c'est dégueulasse. Mmh. voilà. guerre civile. guerre civile rëy na kan moo indi guerre civile fii yàlla ñu ci yàlla musal. ce titre est malhonnête manipulateur c'est même mesquin voilà. ok dégg <laughs> le regard. Hmm. le regard. regard waaye. le regard. yow journal bu bees bi yow yow gan nga ngay door a yegg si yow ngay titiwaaye waat. ñàkk dina yeewi bëy. Hmm? célibataire célibataire takkil jabar célibataire wutil jëkkër célibataire célibataire takkil jabar célibataire célibataire almaloo Ahmed Aïdara waxoon na la ko nee na la ñun jigéen ñun soxna yi ñun bu ñu doon takk suñu bopp jeex nañ bu yàgg takkuñ suñu bopp dañuy takk loolooy dëgg ma ne ah, ma la ma la la la au tutoiement pas la la au yabeel la là au au au au rentrement de <laughs> eh, yow la regard gan nga yaa ngi door a yegg si yow ñu lay dalal yow gab dina yow yi bëy yow ngay tutoyé waate le regard yow le regard yow la ma sa yoon ci suñu célibataire yow yow le regard may wax na journal mu ngi nii mu ni peine et complainte des célibataires endurcie alhamdulilahi rabbil alamin ba bokk ma ci alhamdulilahi bokkoo ci c'est-à-dire célibataire am lu si dama cee bokk man bokkuma ci célibataire àndul si pression sociale bi neena na tere na koo nelaw moom célibataire àndul si bu tëddee guddi li muy xalaat xalaat bu dee góor mooy man nag war naa takk jabar ndax liñ may xasee bari na boo rombee sax ñu lay xoolee ay bët waaye yow kañ ngay takk mm. koo dajal mu ne la waaye yow takk ko jabar ba tey. Mm. ak di laam-laamee di xool ba xam ndax yow yaa ngi fi wala nekkoo fi di la testé di la xool ba xam est-ce que tout ça va. du la ko laaj directement mais laaj bi mooy est-ce que après tout va bien. est-ce que yaa ngi on wala yaa ngi off. Mm. dañ koy bëgg di lijjanti. Sénégal ci seen ñàkk maanu bu ñu dajee góor goo xamante ne xamuñu lu tax sëyu lu tax takkul jabar ñu naan ah est que moom sax moom fayitul ci diggante bi est-ce que am na lu mu takkee est sonnul xooxul. Mm. waaw moom est-ce am na kon ko bu bëgg est-ce que est-ce que laaj yaa ngay dugg bu dee jigéen nag ñu naan waa moom lu ko teree sëy moom de amul jom bëggul sëy taxawaaloo ko neex. mel ni yow jigéen gi yow namu koor yow yaay dem yow di takki di takki ku góor gi. waaye jigéen dañ koy takk jigéen dañ koy ñaan si te nag sëy àjjuma la ku sa àjjuma jot muy góor wala muy jigéen bu jotee da nga def pression sociale bi sonal na célibataire endurci yi le regard mu ne AS mii célibataire la am na 40 ans ñeent fukki at mu ne je veux mais je ne peux pas bëgg naa mais mënuma bëgg naa ku tollu ba am 40 bëgg ngaa sëy jigéen junne nag wax dëgg yàlla dafa san lu mu taaru taar lu mu rafet rafet bu ko bu sañoon day toog ca kër jëkkëram di togg ko yekk di jaagar jaagar yi di teggi mu sóor léeg-léeg nga def yére tubaab mu ne moom bëgg na waaye mënul mu ne waaye nañ wax nag ci dot yi dot obstentoire yi nañ ci wax mhm. waa léegi yow ah yow takk jabar eh, yow nga mel ni yow kuy jënd marchandise yow yow kaay ñu may la jabar yow eh boo amul ay millions yow amoo 4-4 amoo pariru or amoo téléphone ñetti bët yi kenn du la may jabar. alislam waxul loolu léegi sëy yi ñu jàpp yëpp def ko ci réseaux sociaux yi lu ñu la may nga publier ko ci réseaux sociaux yi. yaa ngi dégg ah. eh léeg-léeg ñu may la 500000 nga génn na yow 5 millions lay yabal. génne 4-4 génne téléphone portable moo tax sëy bu ñu ci takk ci réseaux sociaux boo góorgóorlu ci réseaux sociaux lay tase. amul demal maa ngi ñëw. waaye sëy leen te yàlla tax waaye may leen seen doom yi te yàlla tax waaye. ñëw nabu koor yor gi moo ëpp solo lépp. nabu est-ce que xam nga ne man damaa ragal ku may doxaan di ma fi sotti xaalis bu dul jeex. Mhm. man dama ko ragal man mu guuma loolu góor nag boo ko dee may sa doom may ko koo xam ne am na diine am na lislaam am na yërmande am na jom te nangu naa liggéey te lu mu am bokk ak moom dina ko sagal dina ko suturaal millions yooyu na ngeen ko consommer ci biir mariage bi du dëgg beneen bi mooy la problématique des castes lii nag kaalax ñi ñaa ngi fii bëggante ba sonn ñi duñ la ko may ndax géwél la duñ la ko may ndax géer la duñ la ko may ndax tëgg la duñ la ko may ndax lawbe la duñ la ko may duñ la ko may yoo xamante ne l'islam santaanewu ko amul fenn fu ñu ko bind waaye suñu gëm-gëmu bopp waaye la révolution a sonné xale 2.0 yi boo leen may ñu sëy boo leen may ñu sëy hmm? à tout moment ñoom dañ lay defee ñoom nekkuñ ci ay détails yi hmm. ay diw géer la diw géwél la ñoom bëgg lañu xam bëgg la ñu xam ba pare ñu bëgg leen ko xañ ba pare Sénégal du ñu bàyyi pression sociale boobu. ci dafa am ku sëy nga tuuti ñu lay xool am nga doom ah yow kon am nga doom ba tey. Hmm. ñaata doom nga am. Hmm. sëyaguloo euh, looy xaar ah yow bàyyi dàqe. dégg leer na la ñoo ngi dàqe. dàquñu kenn. ah dàquñu kenn. et puis booy dàqe sax góor ni mu amee liberté tàmm tànn soxnaam. ne soxna su baax laay wër samay yaayu doom laay tànn mais yow aussi jigéen yow am nga liberté tànn. Ah, faaw nga tànn aussi borom kër laay ut papa may papaay doom laay seet. waxal de mais cette liberté là on ne nous accorde ajal ah, micro waxal de. Ah, mais dañuy toog rek ñu laa dégg de sonn nañ de. gën leen ci li ngeen ne. sonn nañ nag sonn nañ sonn nañ yaa ngi dégg. sonn nañ nag nabu koor nee na sonn na en tant que célibataire andi si li ngeen koy teg attanu ko waxuma ak man de bismillah kon ma ñëw ci journal bu mag bi <laughs> journal bi nga xam ne maag moom a nduróo couleur tey wuyu ma xoolal la refee nga xool ma maag moom teg teg. c'est beau t'as vu les couleurs. ouais magnifique. maag Khalil Diémé teg teg dañoo couplé nii journal bi maag moom ci Saint-Valentin bi. 14 14 ah yow ba pare xoolal la refee li mu tiitre neex li ya tax yow ñu bëggoon laa koñaas parce que yow la refee li ngay génnee ci ay mbóot moo bari da ngay déranger la refee dafay déranger. le réveil mu ni présidentielle 2024 Doudou Ka dafa valider ba pare nag di tirer sur Sonko moo dañoo xaar leneen lu dul loolu boo valider candidature nag kay di nga tirer koy tirer keneen fii ah fii keneen koo tirer bu saf bi on ne peut pas confier ce pays à des narcisses waaye mënuñoo confier ce pays également ñoo xam ne jeexal nañu duudu ah, duudu duñu confier dëkk bi ñoo xam ne jeexal nañu aha sorti des responsables parti parti parti socialiste réew mi réew mi AFP yaa ngi dégg ñi nga xam ne d'accorduñ ci candidature Macky xam nga lu mu nar a journal bi nee na chef de l'État am na lu muy waajal li muy togg nag di ko di ko gus-gus yi fu mu nekk nii mooy remaniement bu bees Amadou Ba bu fekkee journal lu mu wax dëgg ah, ah bi dina kii de wala hmm? yéen yi nga xam ne tamit da ngeen ci nekk ci biir te waxu leen carrément fu ngeen far ah boo demee am tiki hmm? man te ngeen a teeloo seen position waaye. waaw yéen bi. yaa ngi ci buntu bi de. Hmm. Azoura ni moom lañ jàpp moom it. Hmm. les échos évaluation potentiel fiscal avantage formalisation secteur informel séminaire bureau politique parti socialiste ñu ne en majorité pour un candidat de Benno Soleil parole non ambiguë de Cheikh Hamidou Kane benn entretien bu mag moom la ñu séq ak moom. ay ca buuxal ñu dem l' évidence mobilisation grandiose durant tout le séjour du président Sall euh, Mohamed M Diagne mi mu ne dafa saluer la reconnaissance des Thiessois. Hmm. <laughs> troisième candidature pour la présidence pacte de Touba ça sent la trahison entre Idi ak Macky loolu la journal ba wax. buuxal libération ñëw ci manifestation Mbacké 65 personnes yaa ngi nii yoo xamante ne am na ci ñeenti élèves yu ñu war a def élèves yi tamit nañ leen bàyyi ñu jàngi tamit defee rek ay élèves pour lan. un retour de parquet Serigne Assane Mbacké et les autres interpellés mu ne daañu taxaw tey ci kanamu procureur Assane Gueye di Azoura Fall Khadim Ndiaye arrêté par la le parquet demande l'ouverture de deux informations judiciaires benn bi contre Daouda Kaloga beneen bi contre Hannibal Djim le juge du deuxième cabinet déjà saisi pour le premier libération indi leeral yi yépp jàpp gi Pa Assane nga ne kuy jàpp kuy tëj te nga jaarale ko ci yoon yàlla na la yàlla en fait ce qui me fait mal c'est ces élèves là maanaam élèves yi c'est-à-dire même juge bi toog yow juge bi yow juge monsieur le juge yow kilifa bi nga toog ñu ne la ñii ay élèves lañu. Mm-hmm. lan lañ doon xeex démocratie bi tax yow tey juge bi nga toog di juger tranquillement kenn sonlu la. Mm-hmm. ci sa xel rek. Mm-hmm. cinq élèves yu manifeste président Moustapha Niasse yor fi doj doj. xeer wu rëy buntu assemblée nationale. institution bi gën a mag. ci Sénégal après la présidence. Mhm. xeer doj nii parce que principe la doon xeex principe la doon xeex. Mhm. ñii di manifester ñi lan la ñuy xeex principe. Mhm. le préfet là de Mbacké nga xam ni mënoon na mënoon nañu épargner ça. épargner ñu lii yëpp mais yàq essence yàq gaz lacrymogène. dépenser xaalis toj ay station causé tort boo xam ne kenn xamul nu mu toll ña waroon liggéey liggéeyuñu loolu yëpp ci lan. Mm-hmm. zèle ça s'appelle du zèle. c'est-à-dire maanaam damay def lii mu neex ma. Mm-hmm. alors que c'est quoi l'erreur bon il faut rectifier ça parce que formalité la. Mm-hmm. principe la. malgré loolu yëpp yéen la nga doon bañ am na. affaire ba am na buzz am na succès waaja dem na nit ña dajaloon nañ fa. <laughs> c'est-à-dire dafa parfois tu Mamy Samb est-ce que nga xam ne à un moment donné tu naan est-ce que sax li ñuy wax ni lan lay jëriñ parce que parce que quand vous êtes en face de quelqu'un kii naan a cure quand vous en avez cure mais sa qu'on qu'on en aura cure aussi. c'est clair. parce que ni ngay ñàkkee teggin ak kersa taxaw ak ñun ne nu lii laay def noonu la ñuy ñàkkee sa ñaan suñu borom mu tàccu la. waaw <laughs> ah, la hmm. te kaa ma wax la. te yàlla bu lay tàccu day vif. day gaaw moom kun lay def day gaaw. oh. day tàpp. Oh. tàpp la koy def tàpp nag. oh, oh. la oh dafa mel ni tàpp gaa ngi tàmbali di laaj ma lu tax sekk face aux arrestations tout azimut yu bëri yi Guy Marius Sagna ak compagnie ñoom dañoo annoncé benn plan d'action te xam nga lu Guy wax mu ne Macky Sall na xaar xam ni. résistance résistance bi amoon euh, mars 2021 bu ko gën a tar mooy ñëw beneen bi mooy Cheikh Oumar Diagne mu ne le procès en Guinée doit être un signal fort pour tous les dirigeants africains Abbas Fall yokk ci mu ni le régime ne semble avoir rien retenu du passé ci li nga xam ne jotoon nañu ko dund ñëpp daal ñoom dafa mel dañoo gaaw a fàtte gaaw nañ fàtte daal fàtte nañu daal mais xam nga lu koy fàtte bi hmm. bew waaw xaalis bu pare dalay bewloo bu la yàlla dimbaliwul parce que yàlla nag moo xam lu tax muy jox ñii di jox di jox ñële mais c'est que am na ñoo xam ne dama yàlla baal ci li ma wax mais am na ñoo xam ne waruñoon am. dëgg la dëgg la parce que seen am am coonoog askan la. dëgg la man dañuy fàtt askan c'est-à-dire que c'est des gens yoo xam ni dañuy toll fenn foo xam ni non mais ces gens là ci le truc là il faut di di di bëyi bëyi. ku fi nekk ci réew mi di doxal jàmm yàlla na la yàlla jàmmal yokk la kàttanal la. kuy doxal dëgg. Hmm. <laughs> way laa. yàlla yàlla tàpp. déedéet déedéet at boobu sekk neexul sekk boobu neexul dellu fa nga nekkoon yàlla leen yàlla. yàlla ma ne. Hmm. ku ne ci réew mi jàmmal senegal yi. Hmm. di dox ci jàmmu Sénégal yi. Hmm. même sax bu fekkee yaa ngi gérer te situation bi jafe na. na lalu ci dëgg. sa intention yow yàlla na doon intention bu baax bu dee intention bu baax la. yàlla na la yàlla jàppale. amiin dooleel la amiin. way la su fekkee nag da ngay wut wëlmbat di nu jéem a nax ak tiwul xel parce que am na ay intérêt non avoué yoo ñu bëggul woon. Mm. yàlla na yàlla jàpp. <laughs> voilà. tap tap challenge. sous les commentaires loolu dina ma neex. hashtag tap tap. Hmm. wulki wulki. Hmm. wulki. voilà. voilà. lii quotidien. Hmm. suspension Me El Hadji Diouf ordre des avocats journal bi mu ne raison d'une sanction mu ne les acteurs politiques veulent l'empêcher de prendre part au procès Sonko Adji waaye yow eh eh, eh yow Me El Hadji Diouf moo xamante ne ba du ñëwee dafa santaane pour ñoom ñu ñu ñëw taxaw ñu ñu jugé ko ñoom ci seeni bi waa loolu ana acteur waa acteur politique sonnoon na nag loolu ci acteur politique di wut loolu kay yoonu acteur politique nekku ci Me El Hadji Diouf en sait beaucoup ah bon. waaw yan ko préciser nag. Maître El Hadji Diouf en sait beaucoup la société civile ne joue pas son rôle l'avocat fera face au bâtonnier le 28 février yii nag ñu wax ni Guillaume mais je suppose que daa am ku ko wax waaw ki ko wax nag mënoon nañ ñu ko wax nag waaw mënoon ko wax <laughs> ah lii quotidien mënoon ngeen ko wax Me El Hadji Diouf en ah. sait beaucoup xam na lu mu ko wax am na yoo xam ne itam dafa des du dëgg wax na lépp te ñun dégg nañ lépp du dëgg euh, waaw dem li mu waaw kay waaw kay eh, kii mm-hmm. yow kii Babacar signal Walf bi nga bi nga coupé nii euh, yow ñoom nañ la yóbbu si siis dégg waa kay ñëwal nii Euh, <laughs> l'indépendant ñëw ci acharnement violation de ses droits diabolisation arrestation Pastef laa nii Pastef laa nii ah loolu am si de vilipende na Macky au tribunal des droits de l'hommiste foofu lañ leen yóbbu ndax dañoo sonn ñoom sonn nanu mhm. les patriotes dénoncent une persécution permanente une tentative d'intimidation et des menaces de mort mhm. sonn nanu mhm. moo tax yóbbu nañ leen ci tribunal droit de l'hommiste yi beneen bi ci wet bi xoolal Bougane a ngi nii du ma wax naa la ko sax Bougane interdiction manifestation coupure signal Walf war nga caa wax tentative d'élimination des candidats pour 2024 Bougane dafa tourner en dérisoire régime bi baalu leen dara tous ñebe dara la leen baalu mayu leen tous mayu leen dara dara dëgg la kay géey maam góor dëgg la waaye dëgg la moom wajjab dëgg gu bu noppi de bu noppi géey bu noppi del wax danga war a wax tension politique ligue des imams et prédicateurs du Sénégal ñu ñu ñu ne ñu ne Macky yi dimbali nit ñi waaye wutal jàmm waay Macky yi wutal jàmm ah imam yi ak prédicateurs yi ñoo ko wax ñu ne nga dox ci jàmm wutal jàmm daal wutal jàmm hmm? demande à Macky d'œuvrer pour la paix lu dul jàmm jàmm ko gën hmm? les ondes de la colère Walfadjri contre-attaque et charge Babacar Diagne wallahi Babacar foo tourné ci journaux di nga ko gis yow de yow de yow de bi la am nga coow nag am nga coow l'info ñëw ci candidature présidentielle 2024 mu ne la profession de foi de de ba kii Bal la tudd. Bal. Balle Balle. Balle Balle Ndiaye Balle. ah Balle ah comme nga ne Balle Préra. nu ah, Amina réew mi man lu jëm ay Bal ak yooyu. Balle. ah Balle Balle Préra. waaw waaw ñun mu ngi woon def fi accent accent tamit xëy mu mu woon def fi accent accent. yal na yàlla yokk leen ah. nee na ñoom léegi dootuñu déggati seen tur. yaayu Vigie papaayu Vigie. waaw seen doomu si. macha allah macha allah. yal yàlla yokk leen. amiin sàmm leen kattanal leen barkeel leen. amiin barke alxuraan barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. amiin sama xarit yu baax la ñu. ndeysaan. macha allah mais mais leer fa benn ñu def accent rek pour ma bañ a liir bal. moo looy dëgg. ba ba waaw mais capital nag kenn ci def accent léegi lañ koy def nii rek ah mais capital doomu accent la. c' est comme le e du wolof. ma ne bu e e ñu ci defoon accent lu naa def nii bal nii accent masis ki la yëpp ci yem bal laay liir bal. la la jox waaye. moo tax nag ñu war di bind suñu tur yi ñun ñu ko déggee ñun ak suñu ay foreteeg. moo gën de nañuy bind wolof. moo gën de waaye nañuy bind wolof ay balle. ma dégg nga man bal laa liiroon waa kay du man nag de l'info la moom bu ma kii woon ma orienté woon. ma wax ci wolof sax ba noonu lañ koy bindee balle balle balle. Hmm. waaw kay l'observateur <laughs> ñëw na ci Sénégal France hmm. ah l'observateur ñëw na ci diggante gu yàgg gi nag. à l'observateur bi ñëw na ci ñi nga xamante ne ci sunu ay maam ñoo doon noot dinu noot dinu noot dinu noot dinu noot dinu noot noota noota noot ba bés ñëw ñu ne may nañu indépendance muy le 4 avril 1960 et l'observateur ñëw na ci diggante gu yàgg ci diggante président woo président nation woo nation woo échange woo échange woo rapport woo rapport woo signature woo signature convention woo convention partenariat woo partenariat diggante gu yàgg mm-hmm. léegi nag ci diggante gu yàgg googu xam nga luñ ci dugal pas asat extradition bii nag journal bi nee na mooy le dernier verrou observateur nee li tax Macky Sall bëgg reporter jeudi dernier l'examen projet de loi autorisant à ratifier la convention du 7 septembre 2022 mu ngi ci biir yéene kaay bi compte rendu des débats à l'Assemblée nationale française xam nga lu ñu ci mhm. et la transmission du dossier mu ngi ci biir yéene ci la xëy tey wax waaye de dama ne seen assemblée nationale française lañ ca jotoon a wax ñamoon nañ ci as tuut yaa ngi dégg mhm. ñamoon nañ ci as tuut ñoom extradition bi na man j'attends de voir fu projet bi di mujjee convention bi fu muy mujjee moi ça m'intéresse beneen bi lutte contre les accidents de la circulation coup de frein mortel du gouvernement man dama sonn sax xamul tax ma lire bi ñëw ni alerte ñëw na ci croissance économique dans la zone UEMOA mu ne ça sent bon pour le Sénégal c'est une c'est une très bonne chose waaw mm-hmm. ouais, c'est une bonne chose c'est une bonne chose Walf Quotidien Moussa jot na mu ne le jour jël nañu Macky dugal ko ci kër ba trois heures du matin le jour où on a mis Macky dans une maison jusqu'à trois heures du matin ni ma ko firee noonu la am déet mu ni Sonko attention attention attention à quel jeu joue le PDS ci ban jeu nekk di jouer lii carte la wala wure la wala damier wala échec wala lu mu doon. dañoo am impression que leerul quoi. waa lii njoor ndàcc la wala langa buri wala ban la. Hmm? li li balaling la opposant moom buy jàkkaarloog opposant di ko waas ci suuf di kii rek. Hmm. ay mbiram leeru ah, ah ah mu ne nag cette opposition aventurière et irresponsable moom wax na ci ce qui nous intéresse c'est la majorité silencieuse gis-gisam la le jour où je serai à la tête de ce ah. incha allah yàlla baax na. Moussa Diop dafa déclaré candidat moom candidaturam 2024. Ah, moom lay niru moom de. Moussa mbaa yaa ngi bàyyi xel parrainage bi. Hmm? Diop dee ko bàyyi xel du dëgg réew mi ñëw ci participation manifestation non autorisée six mois ferme requis contre quatre partisans euh, de Sonko euh, source à traduction de Maître El Hadji Diouf devant le conseil ses avocats juges et parties loolu la journal bi wax euh, dénégation collective procédé douze personnes arrêtées lors du procès opposant Sonko Mame entre Mermoz ak Sacré-Cœur ñii mooy ñooñu jàppoon ne bokkul mu Mbàkke dañoo waguma ci li mu Mbàkke bi Sud Quotidien interdiction systématique de ses activités politiques devant la société civile les organisations de défense des droits de l'homme dañ leen a woo pour ngeen ñëw arbitrer kaay leen atte lii ndax jàppe gi bëri na tar na bu leen ko noppiwaale yaa ngi dégg le témoin ñëw ci dans une lettre à la société civile Pastef ci boppam moo bind dresser la liste rouge des agressions du régime sec wallaay dëgg la dëgg la de wallaay <laughs> ñëw téeméer manifestation à Touba lim baa ngi nii <laughs> cinq personnes yoo xamante ne ñu ngay jubali kaso ce qui est reproché à Serigne Assane Mbacké et compagnie c'est à lire ci journal bi immersion dans l'univers des Saint-Valentin loolu bëri nañ ci mooy ñi mel ni nabu koor Saint-Valentin voilà Vox Populi situation politique tendue une si longue lettre de Pastef boo xamante ni bind na ko société civile ca wet wa Guy Marius Sagna mu ngi alerté neena na ce troisième mandat va amener la guerre civile au Sénégal wax na ko ba mu leer dem naa nag léegi ca làmb ja Pa Assane dem naa ca làmb ja Nabou Cor dem naa ca làmb ja ci face à face bu njëkk bi amoon bërki démb ci diggante Modou Lo le roi des arènes gune parcelle bi xarañ loo taalibe cheikh bi taalibe sëriñ Babacar Sy Malick bi kenn du moom mën a bëre bëri pexe doy waar am tactique am technique moo war a jàkkaarloog booy ñaa numéro 2 booy bi terrassé barki dem moo njaay le lion de Guédiawaye mu ne nag seen diggante ñoom ñaar le temps monte déjà mënta ñàkk ñaari ndaandaan yu war a jàkkaarloo booy ñaanee na ko fii amul négociation bu fii am maak yow bu ñu jàkkaarloowee dinañu xeex maak yow te dina ñu bëre maak yow Modou Lo ne ko xanaa kon kuy wut lu yomb bu ngay waxal <laughs> nee na ko man waruma laa facilité mu ne te combat bii lépp lu mu laaj dinaa ko jox kon combat bii dina neex mën nañ jàpp ne dina neex 46 ans impopulaire caché cher lu tax bombardier daal dafa war a dem retraite loolu la sunu làmb di laaj ñëwal laas mu ngi nii Modou Lo Boy Niang mu ne combat royal la pour le trône bu Boy Niang daanee dina jël roi de arènes bu Modou Lo daanee te yàlla na am <laughs> moom mooy garde roi des arènes bi waaw waaw ay ragal féete day day xaje wërsëg man Modou Lo laa bëgg lii la yàlla dogal man damay seetaan làmb Pa man damaa bëgg làmb Pa te man Modou mooy sama mbër kay c'est du sport chacun dama bokkul ak ñi naan lu ma seetaan làmb te fekk am nañ mbër. waaw ñooñu ñii. waa ah. waa club Saint Valentin <laughs> ñoom ñoom laay waxal yaa ngi dégg. Eh, nga kaay ma wax la ci Wii Sport ci la ñëw tey pour sa xol bi sedd de la LDC et de retour Sadio Mané forfait Bouna Sarr dans le groupe commentaire ci. <laughs> aja waxal ci télé bi dana mel ni njambaalu tool waxal yow lay déglu PSG Bayern loo ci wax vingt Euh, Bayern Bayern du moroom Paris Bayern du moroom Paris moroomu Paris. Ah, Bayern du hmm? nen la. Hmm? dëgg la kay sans moo yóbbu ci rouge yi am problème fu mu nekk ma nekk fa nag walaay ñaanco. Euh, mais dans le fond yow parisien nga tamit. parisienne nga pardon ça moom c'est c'est. ah parisienne nga. c'est vrai. mooy sa mooy sa équipe. diggante Messi ak Mané. bu Messi taxawee Mané lay jàpp du dëgg. yow miy bëgg ah, Lionel Messi xale bi de mën na ciw mën na caa. Mm. c'est un huitième de finale aller face au Bayern vingt heures tey la match bi mu ne Paris en grand danger Mbappé day ñëw au secours Mbappé bi laay boo ñëwee di nga xam ne lépp dëgg la ñëwal. Mm. <laughs> ñu ngi lay kaar Mbappe boo ñëwee dinañ la Mbappe Mbappe ba nga xam ne fii fii sa borom benn borom nekk fi. barki ko aj ajal ko fi ñu ko aj sax fi ñu ko ko fa. booy bi barki yàlla ñoo ko jaay ne ngaalakan soose eh soose dama ko nam moo tax sama xel dem ci moom. Pa Assane Mbappe bu ñëwee daañ la Mbappe Mbappe ba nga xam ne fii sa benn borom fi yow maa la wax lii. <laughs> te moytul sama pronostic nag Bayern na day dóor Paris Saint-Germain maa ko wax. ñooy nii record lii la la ñoom yéen la encore ba Bayern à l'assaut d'un PSG mal en point ni ngeen mal da ngeen gën a mal en point buuna dans le groupe bavarois Sadio absent garaawul Pape Matar une opportunité à saisir loolu itam lu baax la tuwaar kàll waaye dama ne wax ji bu mu neex neex ba ngeen fàtte ne tey la Saint-Valentin <laughs> na bëggante gi neex na statut yi jolli na kado yi jolli kado yi jolli problème la mag statut <laughs> na neex na neex a neex tey la ba su bëggante gi dafa war a neex yaa lan nga koy dolli madame man nag Pa Assane bëgguma chocolat bëgguma carotte man Pa Assane man kaalis lu ma bëgg man ku ma bëgg nag ma may kaalis akay ah, yow yow commence par yow akay ah. ah, làmb sa pochette làmbal oh, c'est beau ça na bu ko bi ma nekkee man nag yàqu naa ni giir gu yàqu moo gën a bon giir gu yàqu day gu yàqu moo raw kay jërëjëf Seck maanaam ama kumbal bu doon lii saa yoo ko joxee mam yi dara dal ko wala nga jox ma ko dara tee nag déedéet danga naan bu doon saa yu ko joxee kon su suñu benn baaraam kuuñ ñun desee suñuy baaraam yu ñu man dama tee boole moom mooy jox pare ma koy truand di ko dóor di ko màtt di ko def ay yéen Nabou yaa ngi téye billet bi lu yàgg bugguma loolu jottali billet bi dafa yàgg ci yow jox ma jox ma jox ma man dama la ko joxee rek man main gauche ak main droite ah. mais diggante boo ci yam yow jox ma xaalis bi. sama diggante ak yow junni da ciy dox. jox ma mu diggante ak yow junni di dox lu ne yow ñaar téeméer di ci dox jaaral nee nga nag ñam a bu métti bii. Pa xam nga magu lébu yi boo leen joxee ñu lekk ba suur jox leen ñu naan ba màndi dafa am benn wayu lébu bu ñu laa woyal danu naan la. Hmm. biir a waxal biir a waxal biir a waxal. Eh aadaan lekk naan biir a waxal. Eh biir a waxal biir a waxal biir a waxal. aadaan lekk aadaan naan biir a waxal. loxo bi nangu loxo bi nangu loxo bi nangu. aadaan joxe maa daan nangu joxe di nangu eh waay wàcc naa bésu. bésu man maa ko àppoo bu ko kenn waxati bëgg man man maa bëgg mami. merci beaucoup merci ma grande pour la revue sec tàggoo nga demal. jërëjëf ñun baal nañ la am benn problème am benn. <laughs> <laughs> kenn mësu ko